waaw macha allah comme lu ñuy wax rek yaa seet da teg foofu sa baaraam ñu wax ak yow ngir fi nga daanee am na solo lool jàngee si ne jàngee nañ si ne comme yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne nii mooy de sukko mooy ki nga xam ne ni moo dimbale jamono waaye mooy ki nga xam ne ni moo génnee nit ñi from darkness ndaxte balaa yonent bi doon ñëw comme ñu ngi doon dund si life of ignorance waaye yonent bi sallallahu alayhi wa moo génnee si loolu noonu yëpp kon kii wax yàlla màggal ko lu war la. léegi dañuy jàll si ki nga xam ne ni mooy seydaa Oumou Kalsoum moom mu waxtaan ak ñun si li nga xam ne nii mooy njëriñi gàmmu ndaxte gàmmu nekk na li nga xam ne ni comme ñu bari dañ am miss misconception comme ne dajaloo bi bi daala ak yeneen ak yonent bi waruñ koo màggal ak yooyu noonu kon Seyda yow dañuy ñëw nga waxtaanal ñu liñ laay njëkk a mooy nga indi ñu la definition of gàmmu then soo paree nga indi ñu li nga xam ne nii mooy ngéneeli gàmmu incha allah. waaw macha allah Zeyda yàlla mu ne kuntum xayra ummatin uxrija linnaas mu ne def naa leen ngeen nekk gën ci xeet maanaam nit yi yëpp tànn naa ne yéen ngeen nekk ñi nga xamante ne ñooy gën ci xeet mu dellu waxaat ne wa kazalika jaxal naa ummatan wasatan li takuunu suhadaa yi halan naasi mu ne nekk ngeen ñi nga xamante ne yéen ay seete yéen ay seede ni bés penc loolu mooy wane ne ngëneel mu ngi ci waaye comme ni ko Zeyda bu waxee ma wax la lan mooy gàmmo incha allah gàmmo suñ ko waxee mooy dajee mu ngi mel ni lu mel ni séminaire nit ñi dañoo dajee jógee east south west et cetera ñëw pour bëggee yonent bi màggal ko wane suñ bëggee bëgg koo jóge loolu moo tax nit ñi di def gàmmo te bëgg yonent bi lu war la ngir daf lay yar gannaaw buñ jógee si lan mooy gàmmo ñu wax leen si njëriñu gàmmo yi njëriñu gàmmo yi nag lu ñu leen asiloon yépp si njëriñu juróom-ñaar la muy seewiñ incha allah nar nañoo waxtaane ak yéen si seewiñ yooyu noonu yépp waaye mu dénkal leen ko benn si njëriñ yi mooy ne gàmmo dafay wéral sa ngëm dajee bu ngay dajee noonu dafay defal sa tawhid ngir ne yàlla mu ngi wax si suratul israil aya 77 ne moom moo nekk ku nga xamante ne duñ ko bokkaale ak kenn te yàlla yàlla moo nekk ku nga xamante ne duñ ko bokkaale ak kenn moo tax mu wax ci suratul israil aya 77 ne nit yi ak jinne yi suñ dajee woon duñ mës a andi lu mel ni alxuraan kon yàlla boobu noonu réeréewul ñu soo gisee ñuy dem gàmmo mooy dajee boobu noonu soo demee si dajee bi di nga gis ku nga xamante ne moo la gën a baax moo la gën a am jikko yu rafet nga dexe bay ma jéem koo roy te gàmm boobu noonu wéral sa gëm dafa humanité dafa taxaw foofu noonu te humanité su taxawee dina waral ne doo ba doo nekk fenkat doo nekk jëwkat loolu yëpp di ko bàyyi kon gàmm wéral sa ngëm moo nekk benn si njëriñ yi léegi ñaareelu njëriñ bi mooy ne gàmmu daf laa yóbbu si jàmm yàlla jaamu bu sell ngir ne si la waxee si jikko yeneen bi dafay tax sooy jàmm yàlla nga sellal ko ngir ne yàlla moo wax ne moom lu mu bëgg si nit ki mooy jaamu yàlla danga sellal ko ñu ngi nettali benn xissa benn waaye dafa ñëwoon si jumaa bi fekk fa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy julli di këpp këppal maanaam di ko gaawal ene mu julli ba pare yeneen bi ne ko julliwaatil mu këpp këppalaa yeneen bi ne ko julliwaatil noonu la ko yeneen bi def ba waaye julli julli bu sell léegi yow soo demee si dajee boobu noonu ñu wax la xissa boobu noonu dinga nga tax yow sooy julli di nga ko sellal beneen bi mooy ñetteel bi mooy ne daf laa yóbbu si njëkkalante bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam di rawalante si bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne soo demee si dajee boobu noonu ñu wax la si dund yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax la ay jikkoom ñu wax la yeneen bi ni mu def ba fool yeneen diine yi nga xam ne yeneen bi extraordinaire la te yàlla sax dafa màggal yeneen bi ngir ne soo seetee ñun dañu dig ya ibrahim kuni badan wa salaaman ya musa ya musa ya Hizab ni maryama yoy yeb dañ koy dégg wa comme ni ko Babacar Thiam waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mosu koo wa ya Muhammad ya ayyuha rasul ya ayyuha nabi ya ayyuha mudassir ya ayyuha muzammil kon loolu mo da wanal ne yàlla dafa magal yonent bi andi na turam way daf ko bolé ak ay confirmation kon yonent bi inna qad malal anbiya'i wa qad arsal الأنبياء إن قدم الأنبياء فق أرسال الأنبياء waaw loolu mooy wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku màgg la ngir ne bàyyi sax na ko comme nu bayti boobu noonu waaw gannaaw bu ñu jógee bi mooy daf laa yóbbu nyenda la yobbu pour nga ngaje jihad ak sa bagat di nga def paratay nga def di nga def teggini nga def askari ngir ne so demé ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan def astaghfirullah yu bari nga ne dina ko jema roy nga ne ñu ne la daf daan def salatu fatiha yu bari nga ne dina ko jema roy dafa nit dafa mujj nekk li nga xamantene daf lay inspire yow da nga dem ba mujj min ko sax ngir ne ñu ngi nettali ba tay ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba mi ganna buñu jégué ci si xare bu metti léegi sahaba yi nako xare bii dee métti na mu ne jihaat bi métti na mu ne leen ne jihaat bu gën a métti nag mooy nga jihaat ak sa bakkan te soo demee si gàmmu ñu wax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jihaat bu mu daan jihaat ak bakkanam loolu dafaa tax yow nga ne he man de war naa roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si loolu even su fekkee benn part boobu noonu rek ngay jël si sa dem gàmm lu am solo la ngeen ne yeneen bi moo wax ne jihaad bu gën a métti mooy jihaad ak sa bakkan te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sa daf daan def awraat yi te nettali nañu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba tànkami di néewi beneen bi mooy ne daf laa si jihaad daf laa si am liberté ngir ne suñ la nettalee si jikko yeneen bi dafay tax nga am liberté muy nit ki ak bàyyi may ñu ngi nettali ne am na benn jigéen dafa tëjoon muus bi si néegam joxut ko mu lekk joxut ko mu naan ba muus bi dee gannaaw bu muus bi dee jigéen bi dee yàlla yóbbu ko safara ñu nettali na tam beneen xisa benn waaye mus ta def lu baax si àdduna waaye gis benn xaj mu mat mu jox xaj bu mu naan loolu bu mu dee su la ko yàlla yóbbu àjjana moo laa wanal ne nit soo amee liberté dafaa tax nga nite hmm. même su nga xamante ne yaa ko moom sa lu nekk dam koo jox àqam ji jikko rab yu nekkoon si ñun ba nga xamante ne bu njëkk soo ëppee nit ku doole soo ko lebee doo ko fay soo ëppee nit ku doole lu ko naxat rek nga koo wax ngir loolu yëpp jikko rab yu nekkoon si ñun la ba pare tamit gàmm foofu la laa yóbbu nga am liberté ngir nit ki su amee liberté da di nga ko def mu nekk nit gannaaw bu ñu jógee foofu noonu mooy ñu jam si fu nga xamante ne yàlla ah gàmm daf laa yóbbu si lekk lu dagan foofu noonu lu am solo la ngir ne yonent bi sallallahu alayhi business na te sàmm na itam te ñaari métier yooyu noonu lu sensitive la te dafa mandute def si mandute def si jëfe tolop daal te yeneen bi sa business bi nit ki mën na laa jox business am nga nekk di si jëriñu su la laajee nga ne ko ah business bi taxul te fekk yow yaa si njëriñu kooku mooy dem ba si kanam mu ne kii mu ngi jëriñu si lii te waxuma dëgg mu jël business bi si moom mm. te yàlla mu ngi wax comme ni ko sëriñ bi waxee si njëlbeen bi fa isa faraxta fansab wa liggéeya soo jegee si liggéey nga jaamu yàlla soo jegee si jàmm yàlla nga liggéey jàmbaar dëgg noonu la war a mel uteeg ñun ñi nga xamante ne suñ jàmmoo yàlla guddi bi bëccëg bi yëpp ak suba bi dañ ko nelaw xanaa lekk moo ñëw tax a jóg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala arab bi ñu ngi wax ne yonent bi mu ne liggéeyal sa àddina ba nga mel ni fii ngay des ba faw waaye tamit liggéeyal sa àllaaxira ba nga mel ni tey ngay dee nga naa buñ ta Mawlana ngi wax mu ne jëf yi yëpp si lekk gi la nekk ak àndandoor ngir ne su fekkee lekk loolu dagan lu xaraam rek la ngay def ak lu bon su lekk boobu na lekk lu ñàkk dagan bu nga lekk noonu mooy waralu te àndandoor bi tam nit ki soo ànd ak moom dafay dem ba nga xamante ne lu moo def ngay def lu moo wax ngay wax lu moo doxee sa su yàggee di nga doxee ak moom te olof sa mun ne ko dafay wàlle te àndandoor boobu noonu Zeyda Maria mën naa ànd ak moom xëy na moom dafa commencé di def ay ay plat ak yooyu noonu ma gis ko mu ngi koo def léegi ma ne xaaral ma jéem koo roy loolu yëpp si àndandoor bi la moo tax Mawlana Cheikh Tidiane ne jëf ji yëpp si lekk bi la nekk ak si àndandoor bu mujj bi nag mooy politique gaaw ma def laa waaye suñu waxee politique sociopolitique lañ si jublu ngir islam taxale ko wut diine ak politique waaye politique xam politique mooy nit ah ni ngay jëflantee ak nit ñi loolu mooy politique te politique bu nga xamante ne moom la la gàmmu di yóbbee mooy nooy def ba ekkati diine islam waaye di politique bi nga xamante ne dangaa def sa poste ak di nax nit ñi waaye yow yan stratégies ngay use pour ekkati diine islam politique boobu noonu lañ jublu si dem gàmmu te li ñuy tëjee mooy ñi nga xamante ne dañoo wax ne gàmmu bi daal gàmmu du bi daal ngir ñun dem ziyaare ji nit ñun dañ dem ziyaare pour ñu xibaaral ñu. yàlla jikko yu kawe yi nga xamante ne moom la jox yonent bi ñu jéem koo roy te yàlla moo wax ne moo wax yonent bi ne dinaa la xibaaral gars yi ngir sa xel dal kon ñun tam dañ dem pour ñu xibaaral ñu loolu waaye demuñ jikko yooyu noonu waaye demuñ pour ñu demuñ di ziyaara nit kon gàmmu ñuy wax ne gàmmu bi daal ñun suñ dem gàmmu loolu la daal incha allah xam naa ñu jéem koo tënk fii rek. ما شاء الله سيدة بدا لنا سرنا جماله هلال ربي فيه يا محمد فتم لنا البشرى وعما نواله لأفضل أرض حل لأفضل المرسلين بأفضل يوم فاس تبان كماله قد اغتير من كل عوالم أصله كما اغتير واغتيران لذاك فعاله محمد مختار وآدم تينة محمد يوم البعث صراط اتصاله محمد نور القلب وهو محمد عصيم عصيم القلب قد تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يسود أعصابنا منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحق رسالة عليه صلاة الله ثم سلامه يبدو عدوتي منك ختاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون حد يشوف منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهم الحق وصاله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لها من فوقه سماء هلاله عليه صلاة الله ثم سلامه dihapus khussisa asna kuturang wa aluhu